وصلى الله وسلم على الهادي الأمين سيدنا ومولانا محمد المكين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن اتبع بإحسانهم إلى يوم الدين mbokk yi fi teew ñoo ngi leen di nuyu ci nuyoo bi gën a tedd ci di siyaar mboolem ku fi teewul te bis bi tax laa jóg di siyaar mboolem ñi nga xam ne ñoom lañ settal liggéey bi yépp di ñaan suñ boroom mu gën ñoo taxaw gën ñoo sàmmal liggéey bi ba bépp yéene boo xam ne am nañ ko ci ñu eggalee ko ca na mu gën a rafete loolu yalla suñu borom man nako ñi ngi ñaanal bu baax sëriñ bi nga xamne ne moom la fi mo fi togaay jotaay sëriñ la tigé muy sëriñ Mbay suñu borom yagal ko fi lool ak mbolem njabot gi mu sékkal liggé bi yépp di leen wax ne bis bi moom bis boo xam ne la bis yonent bi sallallahu alayhi wa sallama di bis boo xam ne bisub cosaan la fii ci Màkka ndax léegi rek kilifa wax na ma ne juróom-ñaar fukki at am naa ko te dama dama xàmme ko rek fekk ñuy gàmm kon yaakaar naa ne kenn xamut kañ la kañ lañ ko tàmbali loolu nag ku ko am muy ndigal loo xam ne yombatut ci jamono muy ndigal loo xam ne mu ngi bàyyikoo ci Seex Mustafa al Karim te loolu yombatul ñu di ko sàmm ba fii nu toll kon yàlla nañ ci suñ borom gën a xiir ba lépp loo xam ne yéene nañ ko ci rek ñu amee ko nañ ko bëggee su ko defee li leen ci xiiroon ñoom mag ñi rek mooy ak bëgg mooy bëgg yonente bi sallallahu alayhi wa sallama te moom yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo waxoon ne man ahabbani kaana ma'i fil janna képp koo xam ne bëgg nga ma boo liggéey yomal xiyaam man ak yow ñooy bokk fa ñu nekk muy àjjana te loolu rek ah, jar na lu nekk kon nag yaakaar naa bis bu màgg la bis boo xam ne bis bu tedd la na ko sëriñ Touba waxe woon rek kon nañ ko ñi jéemee defe mooy di ko màggal ci màggal goo xam ne dara du ci wuuteeg sunna dara du ci wuuteeg sariya te loolu mooy li nga xam ne moom la fi mag ñi bàyyi woon li sëriñ bi wax naan taazimuhu bi sunnati yaquduna lil janna màggal ko ci sunna mooy li nga xam ne moo ñuy yóbbu àjjana ah بازدياد المنة لمخلص معظم لمخلص معظم جوجي ورنن كي باي خلق باخ باخ موي مغالين وي نين كي مغال موي مغال سلال مغالين وي تلولو يا غانا يكون ورنا كي باي خل ناخ لي ني نيك ا ندون لا لو خامني بو لغي يوم الخيام دنج نكاي لاج كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته te Serigne Ibra Tické na mu ko doon màggale weesuut na ko Serigne Touba doon diglee weesuut ni ko lislaam santaane mooy màggal ko ci sunna mooy jàng alxuraan jàng ay xasiida jàng ay lim ci xasiida comme ni ko Serigne bi waxe ci suba ne Serigne Ibra ni mu ko doon defee mooy jàng ab lim ci jës bu jàng ab lim ci muxaddimaat jàng ab lim ci mawaahib bu bàyyi limaan jàng ay jàng ci barzan ay bunt ci barzan jiw nga xam ne noonu la ko seen Touba digle woon te ñoom noonu rek lañ ko doon defe lépp loo xam ne wuute naa ak sariya it daan nañ ko ci bañ góor ñi dañ daan féete ci ginnaaw ci kanam jigéen ñi féete ca ginnaaw wala sax ñaare duñ gisante loolu it lu ci mat di bàyyi xel la. mooy fexe ba góor ñeeg jigéen ñi duñ jaxasoo fexe ba yenn caaxaan itam du ci am ndax loolu mooy tax lañu ñu ca bëgg ñu mën ko jaa am mooy màggalin ci màggalinu sunna te sëriñ bi da noon lii la ko digle woon noon yi la ko daan defe xam ngeen ne rajo yii bi ñu koy tàkk bi ñu ko tàggoo ne ko dañoo bëgg wut ay rajo yoo xam ne dañuy bëgg ñépp mën koo dégg daf ne leen loolu lan la ñu expliqué ko ne ko dañoo bëgg bu ñuy jàngati barzan bi ñëpp mën koo dégg mu ne leen mbaa ci foddu ci am ñu ne ko déedéet mu ne kon am ngeen ci ndigal kon nañu wóor ne ñun ñii lépp lu ñu def jàpp ne lu baax la bu ca fa duggee nañu wóor ne ndigal génn na ca te looy lu mat a bàyyi xel la kon ñoom nañ ko doon defee muy màggalin ci màggalinu sunna ah te seeni mbir ñoom dafa wuuteewut ak mbiram sëriñ Touba ndax ndigal lañu ci am te sëriñ bi day nit koo xam ne ku ku jàmbaare la woon fii ñu toog fi la génn kilifa nettali ne fi la toog moo ko nettali ne fi la toog di jàng xasida nee na yëkkati jës bu daan ne sëñ Ibra Dikke bu jës bu bi eggee te fekkuma fii ma xam ne li mu yor sëñ Tuubaa jox ko ko mu ne may jàng jës bu di ko yëkkati nee na di ko yëkkati muy yónnee addiya ba ci yàgg mu génneel boppam nee na bi mu génnee dafa yor as këmb nee na ma ko sànnee bu daloon sama bët damay damay bët bi day yàqu moo ko nettali fii kon nañu xam ne li ñu am yombut te it nañu ko téye bu baax a baax a baax nit nag bu amee loo xam ne lu jafe la daf koy téye daf koy téye te fonk ko fonk gi mooy ni ko sëriñ bi digle ñu di ko dem defee ndax yonent bi sallallahu alayhi wa kat mooy suñu lépp te ci moom la ñu war a royee suñu lépp itam mooy mooy suñu lépp ni ko alquran waxe ne walakum fi rasulillahi iswatun xasana kon yonent bi mooy suñu royuwaay mooy suñu royuwaay ci lépp dañ ko war a roy ca teggin ya roy ko ci ci ci ci jikko ja roy ko ci lépp ndax moom suñ borom moo ko yar ba pare rafetal aw yaram aw yarinam la mu waxoon ne addabani rabbi fa axsana ta'dibi suñu borom moo ma yar te rafetal na sama aw yarin yonente bi sallallahu alayhi léppam dafa rafetoon jikko ya dafa rafetoon jëmm ji noonu la rafetoon loolu it dañ ko cee war di roy mooy fexe ba ñun ñii suñu jikko yi ñu defar ko ku nekk sa jikko nga defar ko mbooleen melowun woo xam ne ab jullit waru koo melowoo nga bañ koo melowoo waxuma la ab taalibe nag moom loolu dafa ëpp waaye melowoo xam ne jullit waru koo melowoo kenn ci ñun war na ko yëg di nit ki jikko la ahmad as-sawqi yaakaar naa moo ko waxoon nee na innama al umamu l axlaaqu ma baqiyat fa in humu zahabat axlaaquhum zahabu nee na aw askan aw la ay nit buñ koy wax jikko tax bu jikko démé rek dara du fa kon nañu fexe ba suñ jikko yi ñu rafetal ko fexe ba am kersa suñ ak suñ borom waye fexe ba am kersa suñ ak nit ñi ndax loolu moy kersa moy mbokum diine is hiya ukhtu dini khaysu su la yujadu diina kama anhum sabat kon nañ ci góorgóorlu baax moy fexe ba suñ jikko yi ñu defar ko fexe ba mbooleem gàkk-gàkk yi nga xam ne day am ci jikko muy ay réeg kiñaan ak yooyu yëpp ñuy wax ngistal ak yooyu yëpp ñu fexe ko dind ci suñu bopp te xam ne loolu jëmeelut ab jullit fenn waxuma laa ab taalibe kon nañu góorgóorlu ci ay teggin mooy jikko ju rafet yonente bi la alayhi wasallam loolu la fi bàyyi mag ñii fi nekkoon loolu lañu fi bàyyi sëriñ Ibra Tické mag mas naa ñëw fii ne ko sëriñ Ibra sa gone yi day ak sa taalibe yi sa jaboot gépp yaru nañ waaye sa ginaar yi rek moo ñoo deseeb yar dane kër gi ku am ginaar na ko na ko génn ak suma kër ndax man bëgguma kenn di ma màndargaal lenn lu dul ab yar ak teggin loolu itam war nañ ci bàyyi xel bu baax a baax fexe ba li fi mag ñi bàyyi woon ñu di ko sàmm mooy lan ñi mag jiitu ñi ci des top ci ginaaw lool lañ ñu xamé te lool yi ci lañ war gor góorgóorlu te señ bi ci lool rek lañu xir wajaal kabirana wajaal saxirana yu waqirul kabir wajaal kabirana yu aynu lis kon war nañu fexe ba lépp lo xamné day gàkkal sunu njullit wala muy gàkkalub talibé ñu wattandiku ko bu baaxa baax te xam ne guddi gii mboolem lu ci waay sàkku rek mën na koo am ndax guddi gi moo ñu toll la ci sëriñ boo waxoon ne fa man yuazzim mawlida nabiyina baabil huda fala yuxaasabu gada faxtari man wa addimi képp koo xam ne daa màggal guddi gi te màggalin ko ci màggalin wa gën a rafet mooy màggalin wu dëppoog sunna ne bu ëllëgee yomal xeyam kenn du ko xisaab te loolu rekk doy na képp koo na guddi gi mi ngi mel ku fekkeen badar fekke xunayn fekke xare yooyee nga xam ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ak saxaaba yi di ko xeex mooy képp koo xam ne màggal na ko sahida badran bi xëyri wahami képp koo xam ne na guddi gi ba jël alalam ak nu man di toll nga def ko ci guddi gi ngir jëmm yonent bi sallallahu alayhi wa sallama te jubluwoo ca puukarewu te jubluwoo ca puukarewu nee na mi ngi mel ni koo xam ne fekkoon na xunayin mooy xaswatu xunayin mooy li sëriñ bi di wax naan fa kullu man anfaqa fi mawlidihi almusarrafi مالا بخير السرف ولو بخضر درهم فإنه كمن حضر يوم حنين وصبر ويوم بدر ونصر خير الورى المفحم كيف كو خامنا تيو نتي غودي سين بوروم نكو جيغل ndax yonent bi sallallahu alayhi am na fu mu doon waxe ne amul benn yoon jullit ñi di daje ci genn kër ci kër yàlla yi di fa jàng alxuraan ak a jàng xasida lu dul ni suñ boroom daa wàcce ci ñoom malaakaam yërmande képp koo xam ne màggal na guddi gi ci màggalin woo xam ne màggalin wo wañu digle la nee na kookee bu ëllëgee ne du dajeeg lépp loo xam ne da koy lor mooy keroog ba nga xamee ne suñ borom day dajale jaam ñëpp du fa dajeeg lenn lu koy lor mooy wala yulaaqi yow yowma ijtimaai l umami mooy li ko waxoon ci gis bu kon képp koo xam ne jël na si sa alal def ko ci suñ borom dana la ci fay-fay bu réy xam ne fay gu rëy lay doon képp koo xam ne joxe na ci aw ñam moo xam lu mu reggal ci ab jullit suñ borom dana la ci fay fay bu rëy rëy rëy mooy li sëñ bi de wax naan fa man taaman hayya liman lahu qaraa mubajjalan fa xabaa xayraati ahlil himami képp koo xam ne jël na aw ñam jox ko koo xam ne daa ñëw ci bis bi nee na dajale na mbooleem yiiw ya nga xam ne gaa yi baax yi doon na ko sàkk kon nag loolu lu am solo la kon guddi gi lu mat a fonk la tey lu mat a bàyyi xel la képp koo xam ne jàng na ci bis bi alxuraan wala xasida wala salaatu ala nabi suñu boroom dana ko ci defal ay yiw yu bëree baree bëri tey dana ko ci yokk lu bëree bari ndox mi nga xam ne moom la jàngkat yi di jàng sax képp koo xam ne naan na ci suñu borom dana ko saafaraal mbooleem jàng rojoo xam ne nekk na ci yaramam te suñu boroom dina def ci jëmmam wala ci xolam ak imaan mooy gëm yàlla képp koo xam ne teewe na bis koo xam ne dañ fay màggale yonente bi sallallahu alayhi wa sallam suñu boroom nee na wala yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moo ko waxan du faatu mukk lu dul ni daa faatuwaale ngëm yàlla kon guddi gi lu mat a fonk la tey it lu mat a bàyyi xel la kon nañ ci gën góor góor lu baax ci gën koo fonk gën koo bàyyi xel ndax Sëriñ Tuubaa moom léppam yonente bi sallallahu alayhi wa la ndax bi mu jógee suñ boroom da koo tegtal yonent bi sallallahu alayhi wa sallama mu ne dallani allaahu dallani ala allaahi bila tagarrurin wa xidmati taxabbalaa suñ boroom moo ma tegtal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam waxaan na feneen foo ne ne bi suñ boroom suñ boroom da ko da koo tegtalaat wëlbatikuwaat tegtal ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu ànd ak yonente bi sallallahu alayhi di liggéey ba yonente bi sallallahu alayhi teg ko ci loxoy suñu borom bi ko suñ borom yonente bi tegee ci loxoy suñu boroom nag mbooleem lu fa waay doon wut suñ boroom tegaale ko ci ab loxoom te loolu lu wér la mooy lépp loo xam ne lu nit ku baax doon wut la suñ borom teg na ko ci loxool sëriñ bi te loolu dara muy ko ko muy lu dul ak xëram ci yonente bi ak bëggam ci yonente bi nga xam ne dem na ba naan yonente bi sallallahu alayhi wa bu ma ko bu ma ko fi fekkutoon te asamaan si koy tiim ma koy gis rek li may wut sama pas-pas dina ma ko may nga xam ne mësta teg gi mukk tànkam fu nekk dem na fa fu lu nekk daj na ko te dara waralu ko lu dul yonent bi sallallahu alayhi ak bëggam ci moom te bëgg googee da koo jaraloon lu nekk lu ne mu daj ko lu ne mu daj ko exilé nañ ko génne ko ci réew mi te loolu lépp dara waralu ko woon ngir bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam dong moo ko waraloon coono bu nekk mu daj ko te loolee dara waralu ko woon lu may bëgg gi mu bëgg yonent bi sallallahu alayhi wasallam rek moo ko waraloon lépp lu mu am jébbal na ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam jumlatu maali wa midaadi wal qalam hadiyatun lil mustafa babil alam mbooleem sama alal sama daa samay kër lépp jébbal naa ko yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ñu exilé ko fi génne ko nga xam ne lu ne daj na ko xusuur yi xalat wal ahlu an nii tafarraqat li matqi alladi anhu lmadiqu yasiru moom kese moo taxoon ñu génne ko exilé ko moom léppam Serigne Touba da koo jébbal yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dammi wa ahli wa awlaadi alfidaau lahu abdan qadiman lahu muskaana li sanada kon moom mësta am dara mësta bëgg dara lu du nekk liggéey katub yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi xidmati alqurani walxadisi asbutu laa bizahabi almawruusi nen ci liggéeyal alquran ak liggéeyal xadiis yonente bi sallallahu alayhi wa sallam ci laay sax waaye du alal du wurus woo xam ne dama koy dajale te loolu moom sëriñ bi ci la nekkoon alxuraan ak sunna rek alxuraan ak ah, ak ak sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam rek nga xam ne loolu ci la nekkoon digal mbooleen taalibe yi itam mu digal leen ñu sax ci alxuraan te di ko jàng te di ko jàngul kullu muridin biya yaluusu fal yudim tilawatan li gayri sikrin xarrusin murid bu aju ci man nay jàng alxuraan léegi nag murid yi moom dañuy jël li nga xam ne sëñ Tuubaa wax na ko te mu gën a neex rek ñu di ko ñu di ko jëfandikoo di ko wax fu ñu toll kullu muridin bi yaluusu yasaadu fa innahu min al ada mubaadu nga xam ne murid yi bëgg nañ ko lool amna ko xamne ci seigne Mame Lamine Diop bi mu déggee bayit bi neena man dama tit ñu ne ko lan mo tax a mu ne dama xamut ba xam ndax mourid ye seigne touba day wax ci la bokam de moy mourid bu aji ci man bu ëllëgee day taxe kon nañu fexe doon ay mourid te fexe sax ci ak talibé fexe itam di sax ci ndigal fexe li ma ko waxee woon léegi ñu defar suñu jikko yi bu baax a baax a baax ab taalibe day fexe ba fépp foo xam ne teew na fa mu man faa teewal Serigne Touba ndax mag ñi noonu lañ meloon Serigne Touba bi muy samp seex yii sampew leen ngir jox leen i taalibe waaye daa xam ne ku nekk fa nga nekk boo fa demee man faa représenté Serigne bi ci sa jikko man ko faa représenté sa diine waaye ñun. li gën a am solo moom lañu moom la ñu bàyyiwul xel mooy jikko yu rafet ak diine te ñoom ñaar mënuñoo tàqalikoo mënuñoo tàqalikoo waxam naa ko léegi isbu wa uxtu diini xëy su fokki dal laayu jëddu diin foo ko ñàkkee rek amatoo diine jikko fu ko nit ñàkkee na ko wóor ne amatul diine sëriñ bay jaxate ne woon na njébbal du lëf lu dutub yar koo fi gis yaruwut nañ xam ne jébbaluwut na jóg te naa ni garab kon nañuy defar suñu jikko yi defar suñu am ay teggin am ay teggin loolu bu ngeen gisee maa ngi ci insister mooy li nga xam ne moom la sëriñ bi di doon digle ndax ci suba wax na ma ko mooy fexe ba ni ko sëriñ Ibra doon defe ñu di ko ni defe fexe ba li mu fi bàyyi woon ñu di ko sàmm te loolu mësta weesu mooy sax ci sunna sax ci ab ak taalibe akub yar loolu la ñu xam dëkk bi te it loolu la kilifa yi bëgg ñu nekk ci kon nañ ci góorgóorlu bu baax a baax ñu ngi jégglu mbooleem ñi fi teew ñëpp ci kàddu yu ñu fi yëkkati rek te xam ne ak xam taxul ñu koy yëkkati waaye ndigal lañ ci lañ ci jot mooy لسرين بيوخوان لا تفعلوا شيئا بغير الإذن فالإذن صرط في خبول السئن موي بولين ديف دارا لودول امولين سي ديغال ناخ ديغال موي تاخ جيف مانا نانغو كون نيغي ديغلو نيب والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته